di andi ay kàddu seede ak ay kàddu témoin rek ci Cheikh Massamba mi ci digganteem ak wa keur sosi yeb ci digganteem ak wa keur Cheikh Hadji mohammedine Fata saxo ci ak ñom ak kóllëre gi am ci ak mom sank rek maa koy wax bi may ñew ci nekk ci ruqu di yeb lu ne nañ mako wax ne ko wax ci Cheikh Massamba mi ci rafetal. muy ku baax muy ku woyof muy ku am yitte yàlla dogal ñun suñ gàmmoo ci kër Socé mu ciy liggéey liggéey bu am solo te tamit yàlla dogal ne bu ko neexoon mën na ko cee bañ a fekk ah, wax dëgg mu ciy liggéey liggéey bu am solo ci avant ak après gàmmo gi kër gi dem ba jappé tuñ ko jambour ñu jappé ko njabot parce que son ki ne nee ma Cheikh ma samba ma moko njabot gi ma jur ci sama bir bi kon lolu amna na ko tek amna na ko yobbu wax deug yalla ñukoy ñu lay sédel ne Cheikh samba wa Kër Socé yépp kontaan nañ ci yeg yeg bi wa Kër yépp ñu ngi lu bi te itamit seen yitté yépp mo nékkon ñëp ñëp ñu wajal ko ñom ñëp ñu téwandor waaye nag nekk fa di programme lu mel nii moo leen jàpp ba ñoom ñëpp mënuñoo yegg si waaye dal di la wax ne dinañ ko gën a waajal dinañ ko gën a bàyyi xel pour prochaine fois parce que ñu ngi ñan yàlla bis bi yàlla bu mu yem tey yàlla bu mu yem tey yàlla bu mu yem tey wasalaamaaleykum wa rahmatullah